Sita soldat moo leen wan ginnaaw sentel numéro 2 ngeen jakar lol. Siteu soldat ak sentel numéro 2 sentel numéro 2 moo leen wan ginnaaw Siteu soldat ngeen jàkkaar Sita Siteu soldat ak sentel numéro 2 ndaysaan sentel numéro 2 mooy turandoo sentel mu mag ma ndaysaan jarbaatu Baye Ndiaye la fayu laa ilaaha illallah Siteu Soldar ak Sentel 2 Siteu Soldar ak Sentel 2 ñaari mbër yaa ngi bëre ñoo ngi xeex jëlaat na tànk bi Sentel 2 seen ndeyjoor Siteu Soldar seen càmmoñ ñaari xale yu nañ fi nee naa la Malick Ngom moo koy arbitré le grand arbitre Siteu Soldar Siteu Soldar ak Sentel numéro 2 Siteu Soldar ak Sentel numéro 2 laa ilaha illallah Siteu Soldaar mu ngay door ci suuf pour mu siggi Siteu Soldaar moo leen won ginnaaw sentel numéro 2 moom ngeen jàkkaar lool Siteu Soldaar ak sentel numéro 2 Siteu Soldaar ak sentel numéro 2 Siteu Soldaar ak sentel numéro 2 ba tey Siteu Soldaar seen càmmoñ sentel numéro 2 seen ndeyjoor ku ci nekk am nga ngemb lan moo xew na lewaat resita ci Soldar seen sentel seen tel deux moon ngeen jàkkaar lool ñaari mbëri bëri nañ fi léegi bëri bu rëy ba seen tel deux dem ardo daal di ñëwaat nee la ñaari nañ fi bu neex xeex fi bu neex Soldar cokkaas na sentel tel Sentel numéro 2 ak Siteu Soldar Sentel numéro 2 ak Siteu Soldar waaw door na léegi Siteu Soldar ak Sentel numéro 2 Siteu Soldar Sentel numéro 2 Siteu Soldar ak Sentel numéro 2 soldat sentel numéro 2 dooraat na ko dooraat na ko mu arrière. Siteu soldat sentel numéro 2. Siteu soldat sentel numéro 2 xeex fayu daar na laa ilaaha illallaah hee ñaari xale yaa ngi bëri ñoo ngi xeex bëri nañ fi bëri bu neex waaye lii mooy lamb waaye lamb day neex saf bëre. Sentel numéro 2 door na Sentel numéro 2 ak Cité Soldar Sentel 2 moo leen wan ginnaaw Cité Soldar ngeen jàkkaar lool Cité Soldar ak Sentel numéro 2 Cité Soldar Sentel numéro 2 ndeysaan maa li nga ko ma ngi wax ak moom nee na ko Cité Soldar taxawal nga bëre dafa li muy calculé ci lamb ji moo bari. mais bëri nañ lu neex première minute. non bëri nañ lu neex. bëri nañ lu neex jëlaat na tànk bi. jëlaat na tànk bi. soldat daa mel ne xeex bi la gën a. eh Siteu soldat sentel numéro 2. xeex bi la indi. xeex bi la indi waaye sentel bëri bi la bëgg. xelal la temps bi mën na. temps bi mën na. temps bi mën na cinq minutes. cinq minutes la. léegi mu dal Siteu Soldar ngeen jàkkaar lool Sentel moo ginnaaw Siteu Soldar door na ba coppet hey ndax fii jël dina fi am wala lan ndax fii jël dina fi am walla ndax Sentel a ngi bëree ay waay Sentel 2 mi ngi bëree hee hee da koo xar waaye xale bi bañ na da koo bëgg xar waaye xale bi bañ na ñoo ngi xeex jël na ko mu tëgg ko mbar mu bañ lu mu teg xale bi tegg ko un soldat lu mu teg seen tel doo tegg ko laa ilaaha illallah ay waay xale bi waay un soldat ak tel sentel un soldat ak tel numéro 2 un soldat moo leen war ginnaaw tel numéro 2 ngeen jàkkaar lool maanaam moo nekk seen càmmoñ Siteu Soldaar ak Sentel numéro 2 Siteu Soldaar Sentel numéro 2 Siteu Soldaar Sentel numéro 2 Siteu Soldaar mu ngi sëq si sengoor yi jàpp benn loxo bi Sentel numéro 2 Siteu Soldaar moo leen won kanam Sentel 2 moo leen wan ginnaaw Siteu Soldaar ak Sentel 2 waaye téere yaa ngay dagg oh demaat na ardo seen tel demaat na ardo ñaari xale seen bëre metti na eh boo xoolee dañoo tolloo doole ba pare ku ci nekk bi mooy sa premier seen tel de bi mooy premier sortem mu duy mbooloo mu toll ne ndaysaan muy jarbaat si Baye Ndiaye. mais seen tel seen tel moom bëre la gën a favoriser ka xeex. xeex mën naa bëre pour xale yi xel. ma ko est-ce que def ma ma sama bopp. mais mi ngi bëre nag. waaw mi ngi bu mi ngi ak numéro Sentel 2 ñëwaat na. Sentel 2 ngi noonu. Sentel numéro 2 ngi noonu ak Siteu Soldat. Siteu numéro 2. Siteu numéro 2. ñoom xeex ci kaw. ña ngay xeex ci kaw. ña ngay xeex ci kaw. Siteu soldat ak sentel. waaw moo tax maanaam danaan foo foree doom delloo fa sab loxo. Siteu soldat. Sentel 2 Sentel 2 moo leen woon ginnaaw Siteu Soldaar ak Sentel Siteu Soldaar ak Sentel 2 Soldaar Sentel 2 Siteu Soldaar ak Sentel torop combat bi ku ne mettiwul da ngaa dugul ci géew gi na tànk bi Père Moussa ak Kalidou Père Nonga bilaa dañoo sonn ñu dañoo sonn si man ndeysaan mu ngi noonu oh xale baa ngi noonu ndeysaan seen waxoon naa daa am lu topp sama ginnaaw. bëre bu rëy nga bëre. Madou Madou ma damaa doon lamb waxoon naa ko ba mu presse ba. signature contrat bi waxoon naa ko ba. Madou man fu ma jógee champion rek a fa ne. wallaay billaay wallaay fu ma jógee champion rek a fa ne ñoo war si lamb sama nijaay dañoo jël lépp jox ma. fëgal a jël xaalis bi yow taal la jox ma. ma gis lépp. amul moo ëpp ñu am billaay dama sonn ay ca jaaj ndeysaan xale yaayu noonu xale lamsaar yaayu noonu pour su nuyu naa la eh, ma lay fay mais xale bi bëri bu rëy bi mu bëri nan la lan la kii bëreegul sax xaar si kanam moo ma jaaxal kii mooy jarbaatu sentel ak Baye Ngaye lu fi gars yi Baye moo koy indiwaat ah, ah. ndam sa kaw période bi nga période fi nan la kontaan ñoom loolu la nag léegi maa ngi mel ni xale bu ndaw te paalaa jërëjëf